Euh, asalaamaaleykum mbokk yi gis ngeen ma tey fi ma taxaw taalibe xaj ma yéen waaye maa ngi taxaw ak suñu waa kër maam borom Touba lan moo xew mbokk yi di ko laaj addina di ko laaj la Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah waaw njaga la ilaha illallah soxna na fi yàgg te ànd ko wér tey soxna Aïda Sylla baleel tey bëgg na dara man aram loo kuma Penda Malick bëgguma benn parte Penda xar yàlla mi ci bopp coor dama ni koy baleel soxna Mame Faty Mbacké Baye Fallou Cheikh Moustapha Bassirou ana ji Serigne Bassirou Sène jëwrin yàlla na fi yàgg te wér Bassirou Bousso sëñ Mountakha Mbacké waaw waaw mbir mi dafa laa doomu jërë ngeen jëf mbokk yi ngeen ko mu ngi noonu fii mooy Touba Tivaouane Maram Mbacke dekki na barki Seydina Mouhamed sama sëriñ maa ngi lay ñoo ngi lay delloo ziar mm-hmm. Mbengue ñoo ngi lay ziar di ziar Ndokh TV di ziar chaîne yi nekk yëpp. jërëjëf bis waaw euh, ñu ngi nuyu ñëpp xam naa ne bis bi li mu lamb mm-hmm. euh, tey euh, say boo lépp lu baax tey moom la làmb. Mm-hmm. lépp loo xam ne ak bokk la moom la làmb moom la indaale. Euh, lépp loo xam ni ak juboo la ak déggoo ak rafetal moom la làmb su fekkoon daal dama koy tënk dama la lislaam tey moo ay euh, lislaam nag bu nee moo ayee euh, nekk xol na borom fi ñëw ci bii di quartier Cheikh yi fekk soxnaay des si kenn nattalewutul maam El Hadji Malick ab liggéeyam ci diine ak nii mu mel Tiwaawan di ab làmp boo xam ni euh, làmp diine la kon euh, su fekkente ni njabootu Serigne Touba ak njabootu maam El Hadji ñoo ñëw bàyyiwuñu kenn tey murit yaa ngi fi taalibe cheikh yaa ngi fii xaadir yaa ngi fii laayeen yaa ngi fii ñaseen yaa ngi fii cekkeen yaa ngi fii amul kenn ku des ndax diine moo ay waaw foofu la kon bis bi li mu làmb mooy diine luñ ciy naw ak di ko bëgg muy lu baax nga xam ne ko dégg saxol xol sedd bu fekkee jul ak xan soxna Faty soxna Faty mi ngi ci liggéey bi ñëw ci liggéey bi bokk ci liggéey bi ànd ci liggéey bi ndax moom mi nga xam ne moom lañu ñu taam ba woo ko sàkk ci moom ngir ak bokk ak diggante Cheikh ma Cheikh Moussa Bachir ak njabootu maam El Hadj Malick waaye dégg diggante Cheikh Moussa Bachir ak waajuram maam Abdou Aziz Sy Dabakh ak magam yi nga xam ne ñoo nekkoon fii ci Tivaouane ak rakkam yi nga xam ñoo nekk ci Tivaouane te sant si ak taalibe yi fi ne euh, su ko soxna si sàkkoo ci soxna maam Fati ne ko lii soxna Fati bu yónnee bu wootee yem ci jullit yëpp du fi jóg ba ñu ñaan tàllal loxo yi ñoom ñaan loxo yi Sëñ Tuubaa ak Maam El Hadji Malick lool te tamit ku ci teew ku nekk defe naa ni mel na ni li leen tax a jóg mooy lu baax li tax a jóg mooy ra bokk diine dara gën ci rëy kon loolu moo mbokk ngeen ko mu ngi noonu mbir mi ala daw na waaye sama baay faal baa ngi nii mun moom laaj tëje sama baay faal maa ngi lay ziar ñaan bur yàlla boole yool bi naka yite yi sant Serigne Touba bu wér wér dama laa gis nga nekk ci waar wi waaw lan mooy lan mooy mbir mi mbir mi day xanaa sàkku si ak ñaan ndeysaan ak santaat soxna Fatou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér ndax lii mu ñuy defloo nii ah lu yéeme la ñu ngi ñaan mu yàgg fi lool te liggéey bi ñu mu gën a yaatu mu gën a muxtaare maa ngi sàkku ci maanaam ñi nga xam ne nee nañu mm-hmm. ci soxna Fatou la ñu jokkoo mm-hmm. képp ku mën a dégg liggéey bii hmm. na jàppale soxna si ba lii bu ñu sañoon bu ñu xëyee Tiwaawoon waxuñu quartier bi de Tiwaawoon yëpp ñun ñu xëy raafale loolu mooy sunum ndam man de loolu lay sàkku ci maanaam képp koo xam ne kii nee nga ci soxna Faty nga jokkoo hmm. maa ngi lay ñaan ngir jëmme Serigne Touba hmm. lii ku ko dégg ku ne boo doon dem sa tool sax boo ko déggee bàyyi sa tool nga ñëw ci ndax mu loolu mooy sunum ndam ci soxna si mm-hmm. ndax moom bisub tey bii mm-hmm. toolam bee ci ci àll ba mm-hmm. moom la waroon bay tey waaye ba ko soxna waxee lii dafa ne bàyyi naa sama tool naa dem ci kërub soxna Ayda bi xam nga ne loolu lu rëy ñu ngi ñaan mm-hmm. maanaam képp ku fi teew maa ngi ñaan ci doole Serigne Fallou mm-hmm. yàlla na yàlla fa say aajo ku fi indi ab mm-hmm. maa ngi ñaan Serigne Fallou yàlla na ko teg te mu mu maa ñu kartan may ñu xéewal te bu ñu may xéewal nañ ko def si yoonu Serigne Touba amiin ci doole jërëjëf mbokk yi mu ngi noonu alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh bi jërëjëf